salaamaaleykum tout le monde c'est Ababacar Sadikh Soumaré capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de taekwondo, ceinture noire, troisième dan, de l'équipe nationale du Sénégal de taekwondo. J'ai été plusieurs fois champion du Sénégal et aussi deux fois médaillé de bronze au championnat d'Afrique. Donc là, on est en phase de préparation pour l'Open international du Sénégal. Daaw ñun ñoo nekkoon meilleure équipe ci le 24 le 25 incha allah ren dañu bëgg xam ni boo ko gagné da ngay qualifier directement final Grand mois de juillet lay doon Dakar Arena. suñu bëgg-bëgg la dëkk bi ñuy xale donc bëgg nañ ci dugg bëgg nañ ci compétir. foofu la mburum lu dànge. walay xoyam xoyame. maa ngi ko wuti ndam li Sénégal ci kanam incha allah. waaw di si woo ñëpp nag àdduna.